jërë ngeen jëf boom di assassinat gi Ousmane Sonko doon wax ne dañu ko bëggoon a boom keroog ba muy dem tribunal di wuy yoon diggam ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dëggalaat na wax ji démb Vox Populi nañu ci page Facebook fa la bindee ne prélèvement yi ñu defoon ci yére yi mu soroon keroog yóbbu woon ko bitim réew doon ca defi analyse ngir bëggoon a xam liquide ba ñu ko sotti woon liquide lu mu ak lu liquide liquidé Ousmane Sonko nee résultat yi a liquidé yéenekaay bi nañu jëf jooje nag moom jiital parti Pastef yi force de défense et Sonko mi ngi jéebaane boom guñ ko bëggoon a boom ci yoonu tribunal bi tribune nañu Sonko feeñal ak assassinat gu mu ne moom lañ doon jëm ci moom li xaw a jaaxal yéenekaay bi ci mbir yi nag moo di ba léegi Ousmane Sonko waxul ci ban laboratoire la ñuy defee analyse yi askan wi ñoo ngi toog di xaar ak di ko déglu ngir mu siiwal résultat analyse yi mu ne yor na ko lëkkute nañu li mu wax daal moom Ousmane Sonko moo di nee na ci ay labo yu nekk bitim réew fa la ñu defee analyse yi résultat yi ñoo dëggal ne dañ ma doon jéem a boom El Hadji Malick Ndiaye bu parti Pastef bi waxoon lu ne mel ba tax mu am lente ak yoon lëkkute mi ngi laaj moom it fan la ab dossier di mujj li Ousmane Sonko ne résultat yi ñu jot dëggal nañu ne alkaati yi dañ mu doon jéem a boom keroog ci yoonu tribunal bi nee neet ginnaaw xam nañu li xew taxawaay biñ ci waram ci wàllu yoon ak ci wàllu politique danañ ko ci taxawee yéenekaay bi dolli ñu ci ne dolli na ci ne moom Ousmane Sonko ne fii ki fan dana defub conférence de presse ngir indi ci ay leeral yu gën a yaatu ñu yaatal géew bi yootu yéenekaay beneen mu di l'observateur ngir waxtaane wàllu politique njiital bi di AJ/PADS di Mamadou Diop Decroix moom la l'observateur xëy di waxtaanal ci dialogue na ne toog waxtaan mooy li war ndax ni réew mi mel guddi yu ñu toll du njariñul naan jigalu réew mi baaxul ci jàmmi réew mi baaxul ci dalug réew mi mu ne fulla ko du toog di xasante wala di waxante lu ñaaw waaye mooy toog waxtaan xoolante ci biiri bët seeni gët ci xët mu njëkk réew mi quotidien ñu xool yi fa njiit réew mi Macky Sall journal bi nee nañu moom président de la république mi ngi insisté ci dialogue bi mu bëgg ko séq ak ñi ñu tuddee les forces vives de la nation woote waxtaan gi mu woote waxtaan journal bi mi ngi laaj la yéen a kaay xëy di jàngat ak di càmbar enquête yéen moom xëy di jàngat ak càmbar institution bii di conseil économique social environnemental banqaasu kër kilifteef gu nekk ci réew mi yéen bi seetlu na yab nañu ko lool ndax ci juróomi at yi mu am ba mu taxawee ak léegi ñeenti nit jot nañu ko jiite muy Aminata Tall di Aminata Touré di Idrissa Seck ba ci Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu ko jox bu yàggul institution beneen bu nekk ci réew oral mbirum commission d'enquête ba ci waxi haute cour de justice mi ngi ñuy xibaar it moom journal bés bi la journée Abdoulaye Diouf dafay jugee ci assemblée nationale ndax dañu koo takkal beneen ndomba tànk ci réew mi journal la mandat nañu moom Abdoulaye Diouf démb la ko def directeur général bu FONSIS fonds souverain d'investissement stratégique l'observateur nañu waa di Arona Gallo Ba mooy jëli place Abdoulaye Diouf ca l'hôpital bu daanaka na ay semaine ngi bu dee ci l'hôpital bu Podor nag ab scanner sax amu fa docteur Sophie Gaye libération ne nañu jàpp nañu ko pile yéenekaay bi docteur Sophie Gaye benn femme la bu ne woon ci réseaux sociaux yi di fa def ay consultation médicale di bindal nit ñi ay ordonnance journal bi nañu waa sûreté urbaine ñoo ko jàpp moom akub assistantam ci seen appartement ba ñu ne woon defoon fa seenub labo fa la leen fekk jàpp leen ci ab garde à fa la nangoo moom docteur Sophie Gaye ne amul benn diplôme ci wàllu médecine wala ci wàllu pharmacie doon na ko jàng nag waaye njàng